I am T Smalls and I'm in Serakunda right now. I use the AfroCell 4G because it has the widest coverage and the fastest speed. I'm going to tell you why I use AfroCell overall. Now this is my phone with a real 4G from AfroCell and this is another phone with a 4G from a different network. And I'm going to perform a speed test so you see the difference. Wow! Africa reads at 64.55 and the other network reads at 20.72. Now this shows you Africell 4G is the real 4G with the widest coverage and the fastest speed. By far the fastest. Hurry now and go replace your Africell SIM cards with the real 4G SIM card. Where Africell goes, go and have the speed to follow. asalaamaaleykum mbokki àdduna asalaamaaleykum askan bi ñu ngi nii bunti Pencami Hall it's the Fatu Network tey nag Gambia by night ñu ngi fii biir Pencami Hall ah waaye gis ngeen ambiance bi si biti xamaguñ lu nekk si biir waaye Pape ñu dugg si biir seet lan moo nekk si biir. ma la ko waxee woon ñu ngi nii biir Pencami Hall sun tree hennes yaa xewle di nobles waaye Pape ñu ngi see artist room bi ah, ma jël gaay ah, mun naa toogee ni mooy mass murder mass murder yeah 187 okay mass murder da nga ñëwoon show love to the brother yeah to nobles isn't it yeah yow lan moo nekk sa relationship ak nobles um that guy Kemi Pablo me and him, we've been long, like we've been buddies for long, you know, since time in New Era, you know. Yeah. Why New Era? Yun ang gilaho. Dahil New Era tas na. new Era, boy, you about to tugi. Nyep ni America, China, malak mga Last man standing, no more. Okay, why belegi New Era You know. Oh yeah, belegi New Era is on, you know. ñoo a winners xam nga. ah yéen ay winners Pape yaa dégg loolu mu ne ñoom ñooy a ah winners a taxawaay tey pour support brothers yi. yeah pour support na pour xam nga dañoo sooloo fi na mi ko gars waay la ni nam seen xam nga dañoo jàppa si bés bu waay na men. ok ñëpp a ñëw pour jàppa si si kaw ak kaw du musa suufee. waaye yaa loolu Pape a kii di suñu ndaanaan bi di Viper ku ko xamul tam dégg na si Gambian music scene bi waaye Not taste more goodie, Now I'm saying? I'm, I'm, I'm happy. Now I'm saying? Um, even Balama I knew, like I was thinking, like, nobles funjoge, ak fugay tolu tay. Si du dara sa. Lol comme like small def said a lot. Like from day one I saw them, I'm len fast like come ene bu baax la You understand? Like come so gisé lu baax. Like comme ba mun ma iñané lu like I do what I can. And, and, and if it moves, it's a celebration for everybody. Come, the picture is bigger than Nobles. It's about Gambian music. So Lite Gudi Gambian music. man maa nekkoon sa boyfriend bu yëpp noonu. waaw sama <laughs> man la Polyman. Uh-huh. boy bu nice. waaw civilized. Uh-huh. war a rise gën a dice mën a organise di sol suma size. waaw chéri bu Marena. waaw yaa dégg loolu mu ne chéri Seyna bu Marena ah Polyman ah, member of the Kirgi family Polyman yow loo am pour wax ok actually damay sant yàlla bu baax a baax. Ah, di wax a big thanks to Gambians yi nga xam ne ñooy bëggee ñun li ñuy def because yombut. nga nekk young musicien di ci xëy di ci gont di def lu ndaw ni di réyal ko yóbbu ko foo xam ne ne sax yow sax sa tur yeegu fa so happiness la pour ñun xam xam nga member of Keur Gui family so di kontaan bu baax a baax daal ci gaameen si ba pare di leen wax ne si ngeen doon pousse benn pousse leen fukk ndax 2018 du 2018 de 2018 la dañu war a lekk am moto yu neex Uh-huh. taka jabar yu rafet. Uh-huh. yaa ngi dégg ah? uh-huh. ba pare di dem ay festival nag di ñëw. because that's what we need actually. because booy soo xoolee Nablus tey li ñu wane is big suba kër gi famille mu ngi ñëw ak something big. so right now. nga wax ma loolu kër gi famille loo leen xewle ak loo leen di waajal. waaw ñu ngi waajal classique. May 11 maanaam Bob Marley Day. Uh, classique event la boo xam ne ni yàgg nañ ko initié. like def na three years now and then since bu ñu ko ba léegi. ñëpp gis nañ improvement bam gis nañ yokku yokku ba pare live band lañ dee play yoo xam nga li ngay dégg ci baat bi ci recording bi soo ñëwee live lu dàq loolu ngay dégg yéen su ngeen ñëw du neex ah. parce que lamp yi leeral foofu noonu ah, su ngeen ñëw du neex mais eleven la Ibou Ndiane théâtre ñu bari xamuñu Ibou Ndiane nag ba mu ngi nekk fële na le booru jiyee fay booru stade soo ñëwee da ngay gis Ibou Ndiane su ngeen ñëw ñu classique def bam def bam top lañuy def def bam neex ma borom baat bu neex bi barxaama man ah, poliman def na yep wax na yep man lu ndaw rek la bëggoon nga ñamal ma ak la seetaan lu ndaw rek la bëggoon nga defal ma tout lu ndaw rek loo ma rek dama def ba sànni yere gëm na suma xel a panamaan bu la kenn di laal wala di la jégué ye if not man na la gaañee bëgguma garab ta takuma tere ma lopitaan man li may faj mu ci yéen ñi le yéen xam na ma daal waaw ah, a kontaanati naa mel ne ko suma seet bi ees bi <laughs> yow luy war a wax ko mom booy bu rafet ma ko bu nice boy. waaye waxal gars yi ñu lay seetal ñu yaakaar. fan kumel ku ni man mi. des naa si Noble suma brothers leen comme man ak brothers and kom nyom ñoo gën promo suma show bi man ko si kanam anywhere amoon na show last year des na concert alliance ñoom ñoo ko promote so xam nga man tamit the little I can do my my post and flyer ñëw seen show def lu kenn def. loolu waa ah, loo ñu amal ndax si ñu ko wal. waaw ñoom suñu eggee si lay soog a egg. waaw yow loo feel ah, as comme Gambien yow xale yi ah, ñëpp de looking up to you guys ngeen nekk mag si music industry bi nga gis xale boo xam ne comme Massi Noble si nga xam ne ñu ngi doog a door ñu feesal place bi nga xam ne ndaanaan ni comme yéen rek a fay dee feesal yow tey loo am pour wax askan bi loo loo waa waaw mooy ne Gambian music mu ngi sant yalla you know be pare di len ñaanal ci kaw lolu you know mu nekk li nga xamantene fa bëgg di am every year ñu kontaan ci torop motax ñu baye everything pour ñëw enjoy affaire yi. jeli ma de ah duma dem duma ma suma cameraman bi ak suma mic bi fek ñamal lo ma tuuti rek tuuti rek ndaw rek. la ilaha la ilaha illallah Gambia Dawda Jawara Barika. Sénégali Monsieur Abdou Diouf barika Côte d'Ivoire moo fay buwañi barika Unity Africa Daouda Diawara barika a ah, yaa dégg loolu a ah, kooku di borom baati urus bi borom baat bu neex bi Pape ñu doxantu seet ambiance bi si yow yaay kan man may xat waa tey da nga ñëwoon support ah, di nobul nobul waaw ah yow loo am pour wax askan waa Pape yaa gis loolu loolu ah way sant bi baax na jëlal ma reer bi rek man miljoner i It's July, but it's with quite Davis and Hannah técnica. I know you. Alpha, Baram Bagasi, Mr. Anything. Right now, I am in Bakau. I use Africell 4G because it has the widest coverage and the fastest speed. I am going to show you why I always choose Africell. This is the phone that I'm using, yeah? It has the real 4G SIM card from Africell. Has another 4G SIM card from another network. Now, I am going to do the speed test. Wow! I got full coverage from official weather speed that shows 88.68. And this other one had no coverage at all from the other network. This is the proof. Official 4G is the real 4G with the widest coverage and the fastest speed. By far the fastest. So hurry and go replace your official SIM card with the real 4G SIM card. Where official goes, no one has the speed to follow.